ay mag ay góor ak jigéen ñoom ñoo lëkkaloo ci fondation boobule seen objectif nekk liggéeyal saali wu Mbacké mu tedd mile ci daaraam yi waaye tamit ci mboolem fànn yépp bile yoon ñu jógaat ngir wàccaayu màggal Touba 18 safar ku ne xam na màggal Touba 18 safar li ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba santaane waaye taxawaay ba am solo bi ci Serigne wu Mbacke daan taxawee tax ñu jóg boole seeni doole boole seeni am-am dajaloo dem fa nga xam ne moom mooy xel koom di dëkkub Serigne wu Mbacke mu nekk fu mu daan tarbiya ay tut tànk di leen yar ngir ëllëg ñu mën a nekk ñu amal société bi njariñ amal seeni bokk njariñ waaye amal seen bopp njariñ ñooñu lee di fondation wàccaayu màggal gi le 14 safar bi ñu jubee màggal Touba ñu dem xel koom togg fa ay añ ngir jëmale ko ci màggal Touba gile dem ci daara yu fasantikoo ngir ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ca daara yële di ay dongo mën a gis seen bopp bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy màggalu Touba gile di ju safar tax ñu dajale lu toll ci ñetti million ci francs CFA jënd ay nag yu bari togg ci ay añ waaye lépp luy xeeti ay boisson ak yu mel ñu seddale ko ci mbooleem daare yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fa nga xam ne moom moo di xel koom bi ñu yeggee ci guddi gi rek la ñu daal di tàmbali liggéey bi daal di rey nag yi di nga xam ne mooy fees beeg yu ci jëm lépp ñu def ko ci guddi gi bi ñu xëyee ñu daal di sóobu ci li nga xam ne moom mooy wàllum togg yi sept heures fekk nañu jóg jublu ci liggéey bi fexe ba mu teel a yemb ñu yóbbu ko ci mboolem daara yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fafale di Xelkom liggéey bi nag ni mu amee solo foo ko takk jéggi na dayoo seen siège bi nga xam ne fa la ñu basé woon bi ñu agsee ci Xelkom muy daaru Tanzil di daara yi Serigne Mourtala moom Serigne Saliou fa lañ doon amalee liggéey bu ama am solo bile ñu jënd lu toll ci juróomi nag waaye tamit togg lu toll ci fanweeri mbana maanaam 600 kilos ceeb yoo xam ne togg nañ ko mu mucc ayib wu méngoo ak jamono mbooleem togg yañ fa togg yëpp mu nekk togg yu set sell lool yóbbu ko ci daara yi nga xam ne fa la ndongo yi lay nekk di liggéeyal Serigne Saliou di jàng alxuraan waaye tamit di tarbiya ci loolu tamit lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukki ci ay paquetu boisson yoo xam ne tamit yóbbaale nañ ko fa nga xam ne moom mooy xel koom lépp rek jëm ci màggal Touba gile di 18 safar bernde yu am solo yooyu ginnaaw bi ñu ko toggee toggin bu mucc ayib sell lool ñu yóbbu ko ci daar yi nga xam ne mooy daara jandatul mahwa daara daarul moyin daara daarul xudus daara daarul shakur daara Touba koom waaye tamit daara daaru salaam daara yooyu yëpp ñu yóbbu fa ay bernde fondation Donay Maam Fatou Diakhaté lim bu am solo bi nga xam ne génnee na ko togg ci bernde yooyu yële ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci liggéey bi ñoom ñoo ko jaayante génne ko ci seen i poos waaye tamit ñu ñëwal seen bopp ba xel koom togg ko togg yu mucc ayib foofale ci xel koom yóbbu ko ci nga xam ne mooy daara yooyu yële loolu lépp nag ñu amele ko ci kilifte fukk Serigne Cheikh Saliou Mbacke mile doon ki nga xam ne moom moo fi nekkal Serigne Saliou Mbacke liggéey boobu nag ñi ko doon taxawee ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci fondation Doney Mame Faty Diakhaté suy cellule bu Dakar ak bu Thiès ak bu Touba ak Louga ak ngaay nit niki noonu tamit diaspora bi desuñ ci ginnaaw liggéey bu ama am solo boo xamante si ni def nañ ko ca fa nga xam ne moom mooy xel koom di dëkkub Serigne Saliou Mbacké mu nekk loo xam ne lenn la ci seen i taxawaay liggéey boobu tamit du yom foofu ndax fondation Donay Maam Faty Diakhaté seen yitte jëpp mi ngi doon liggéeyal Serigne Saliou Mbacké borom koom ci lépp loo xamante si ni Serigne Cheikh Saliou Mbacké moom mi fi nekkal Serigne Saliou mooy bëgg-bëggam ci loolu la ñu fas xar seen tànk tubay comme ni ñu koy waxee ngir liggéeyal ci jëmm ju tedd jooju waaye waaye tamit na ci mbooleem daara yi nga xam ne ñoom ñoo ca nekk liggéey boobu nag contact yi ci suuf képp ku ci bëgg a bokk mën nga cee wut ay information mën ngaa ko ak ñoom ci numéro yi ci suufu écran bi ngir lépp luy information loo ci soxla man daal di ko am fondation bi nag ñu ngi leen sant bu baax a baax ndax gis nañ seen taxawaay rafet na lool di sant mboolem ku ma àndal rek ñëw xel ko maa ngi lay sant bu baax a baax ak képp koo xam ne jàpp nga ci rek sant nañ la bu wér di ñaan yàlla fekke ko ay ati at euh, di man di ko man di ñëw di def defal dongay Serigne Saliou ñun nu nu mel Serigne Saliou la lu nu am Serigne Saliou la di sant suñu waajur nag bu baax a baax a baax a baax a baax ñaan yàlla nag bu delsee ñu man lu ko raw di sant ñëpp nag di sant jëwrin suñ son bu suñ son bu Ridwaan dëgg yàlla taxawaayam rafet na lool di sant mbokku taalibe yi euh, di sant euh, képp koo xam ne daal jàpp nga ci ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di wax ne yàlla na Serigne Saliou Faye yàlla na Serigne yàlla na Serigne Saliou Faye. danañ maam Fatou Diakhaté saalihiina wax saalihaat noo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di leen jaajëfal di leen wax ne noo ngi fii ci xel koom ni ngeen ko xamee ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ko doon waajal. muy bernde safar gi nga xam ne bëggoon nañ koo defal dongay Serigne Saliou yi yaakaar naa ak vidéo bi nga xam ne seetaan ngeen ko gis ngeen fa ñu tàmbalee fa jaar ci la ñu nekkoon ba nu ñu séddalee lépp ba mu jeex euh, nuy sant yàlla nag bu baax a baax ci bëgg-bëgg yi nga xam ne mooy objectif yi ñu doon yi doon xalaat ak di ko wut sunu borom yombalal ñu lépp bañ def ko. képp koo xam ne def nga saw ñaq képp koo xam ne jóg nga bàyyi sa bërëb ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi. Euh, ginnaaw sant gi itam di soññeewaat ndax donee maam Fatou Diakhaté nekkul euh, mbooloo moo xam ne dañuy liggéey tey noppul ëllëg dañoo fas yéenee sax ci liggéeyal Serigne Saliou liggéey bi egg na jébbal nañ ko Serigne Touba yàlla na ko nangul waaye nag wan nañ ko ginnaaw noo ngi jëm ca sunu kanam muy liggéey xelkom bi nga xam ne mooy santaane xelkom bi loolu mooy yitte ji ñu ngi ciy woo képp koo xam ne euh, mbirum sëñ Saliou sa yitte la ñu ngi lay woo ci donee maam Fatou jaxate di leen sant di leen gërëm ndax wàccaay wi ñu waaj waajtaay wu gàtt gàtt la dañ ne woon dañoo soxla 3 millions dañ ne woon dañoo soxla euh, fanweeri mbana gis ngeen loolu lépp daje na ci loo xam ne nii ànd benn coono kon ñi ngi leen di sant yéen ñëpp cant goo xam ne ñi ngi koy jaarale ci coordonnateur Serigne Assane mi nga xam ne moo nekkoon ci bopp liggéey bi te di ci jàmbaar lool nu ko lool gërëm ko lool jaajëfal ko lool ci taxawaayam ni ki doon itam saalihaat yi ci euh, turu maam Kumba yéen ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu fay ñëpp kon mboolem koo xam ne murit nga képp ku am yéene liggéeyal Serigne Saliou na nga xam ne nun waa doonay maam Faat Jaxate tàllal nañ la sunu loxo di la wax ne leen ñëw leen nu ànd liggéeyal Sëriñ Saaliwu ci barabam yi nga xam ne newoon na li ma gën a bëgg ku ma ci dimbali mooy sama daara ndax la ma bu ma ko ñëpp bàyyee ma jug defe ko kon ku ma ci wutu dimbali ma nga fondation Doonay Maam Faat Jaxate fasul yéene yam foofu ndax am na yeneen mbébét ak yeneen sumb yoo xam ne mu ngi ci kanamam lépp rek jëm ci Sëriñ Saaliwu Mbàkke mu tedd mile loolu leen ak tax képp koo xamante si ni yitteel na la nga fas yéene cee bokk liggéey baa noonu bunt yu ubbeeku na mën nga cee bokk sukkandiku def ci liggéey bi nga xamante si ni lépp lu waay yéene ci Serigne Saliou Mbacké mënees na ko cee jaarale ba am ko ñu ko tënk nag muy diggante ay góor ak jigéen ay mag ak i ndaw seen yitte jëpp ñu jëmale ko ci Serigne wu mbakke mu tedd mile bunt yi ubbeeku na ñëpp mënees na cee bokk amul frontière am na ci diaspora bi am na ci mbooleem gox yi yëpp it nag fondation Donnay Mame Faty Diakhaté seen yéene nekk liggéeyal Serigne Saliou Mbacké mu tedd mi di ñaan képp koo xamante si nekk bokk nga ci fondation bi gën a fedd li salaxasaay ngir liggéey bi ñu sumb rëy na lool li ci seen kanam it di leen xaar bari na lool ngir ñu mën a mottali loolu baf am ci ngërëmal Serigne Saliou Mbacké mile ndax bu ñu ko amee amuñ sikk sàkk ci ne am nañ ngërëmal Serigne Touba Xaadimu Rasuul amuñ sikk sàkk ci ne am nañ ngërëmal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye amuñ sikk sàkk ne ci am nañ ngërëmal yàlla kon liggéey baa ngi noonu bu mu laal suuf